au niveau de du ñu ngi wax aussi wàllum euh, sukkali koom ici au niveau de l'Afrique ñu gis ne aussi benn sommet mu ngi tenir foofulee au niveau de la France 17 mm. pays africains en l'occurrence le Sénégal ñu teewee foofulee pour waxtaanee nu ñuy jooyante économie euh, réewu Afrique yi mm-hmm. ans après les indépendances ñu gis ne carrément FMI ñu ngi fi kuréel yi ONG yi ñu ngi fi mais toujours dafa mel ni comme si assistanat boobu ñun les Africains finalement bëgguñ cee génn est-ce que c'est sérieux problème Afrique ñu koy lijjante ak foofu la au niveau de la France. merci beaucoup hein sur les questions que je dirais internationales. Mm-hmm. Euh, fan yi rek bind na benn article sur la dette. Mm-hmm. africaine ñu bokk ci réew yi di leb. Mm-hmm. dëgg la nag leb moom du ñun rek a koy def. mais ñu mais bu ñu lebee fa lañ koy dugal. falaa jëmoo merci yow dafa mel ni danga comprendre sax li ma gis mooy. leb def ay infrastructure baax na parce que mhm. amuñu suffisamment d' infrastructure. Mhm. mais foog ñu xool le ratio. Mhm. maanaam ñaata moo war a dem si infrastructure ñaata lañ war a jéem a leb wala di ko jël si koom aussi di ko def si économie bi ba nga xam ne day génneewaat koom. ndax leb lekk wala leb tabax baax na mais tamit leb. investir baax na. Mhm. et ñun ay réew yu ndaw lañ yu jeune. Mhm. donc man dama jàpp ne ñun ak ñoom ñëpp nag. Mhm. ñu ñuy dimbale. ku ne am na foo euh, taraxiisee. alors comme que du kenn nit doo ko taxal kennam nit. président yi fi nekk am na ñu leen fi jiitu. ñu am na ñu leen fi jiitu. réew tubaab bi tamit am na ñu leen fi jiitu donc ku ne am na si wàll. alors mais ñun daal ni ñu ko gisee tey mooy euh, la lecture qu'on veut faire mooy comme li ma wax leb bi foog ñu xoolaat vraiment. nan la ñuy boolowee ñun africains yëpp sax laay wax. Mhm. pour dem gën a négocier. Mhm. c' est vrai que nag parfois on son du ñu boox ci benn baat. Mhm. mais dafay jot ñu war a ñu ñun su la foo ñu def ñun assises yi ñun tam en Afrique. et c'est ça c'est là où se trouve le problème quand même. parce que bu ñu xoolee euh, un pays comme la France je n'ai rien contre la France. mais mën nañu wax carrément que économiquement parlant France mënut a dimbali réewu Afrique yi quand même c'est donc li nga wax am na solo ndax euh, gis nga ingénieur yi. Mhm. ak stratégie dafa am solo. ndax dégg nañ ci histoire ku ndaw dóor ku mag. Mhm. dégg nañ ci histoire trois cent treize personnes gañe ay junney nit. Mhm. parce que dañ am stratégie. am fuñ ko jaar. voilà donc réew yi comprendre lu bëri. yeew te ànd ak wërsëg itam peut-être. Euh, am na réew yu bëri suñu réew li ñu am ci ressources ñoom amu suñu réew Afrique yi. kon ñu wax dëgg tamit. am nañ nag ay ressources. ressources yooyu. dëgg la amaguñ capacité exploiter ko suñ bopp parce que gap bi mënaguñ ko résorber. parce qu'on n'a pas aussi les dirigeants qu'il faut aussi. monsieur Samba dëgg la <laughs> loolu loolu moom kenn du ko naataable si Afrique bëri na dirigeants yu doy waar. Ah. dëgg dëgg loolu kuy africain nangu nga ko. Mhm. waaw foog ñu xoolaat ni ñuy yoree daal. Mhm. mooy li may wax euh, ñi yor suñu dëkk yi faut que au-delà des compétences au-delà de l'engagement ñu gën a yi nga xam surtout corruption nag. Mhm. li ñu gën a sonal surtout parce que corruption mënoon a diw diw diw mais mhm. ñu bëri la. c'est à tous les niveaux système. Mhm. souvent sax soo koy wax li ma gën a metti nag si suñu dëkk yi muy Afrique. doo laalee loo xam ne dafa bon. Mhm. da ngay gis ñu ne loolu jarul xeex kenn mënu ko xeex. voilà waaw bu kenn mënul woon xeex euh, esclavage. Mhm. Euh, ña ko njëkk a xeex suñ sacrifié wuloon est-ce que tey ñun duñ nekk ay jàmb léegi. Mhm. Euh, colonisation bu ko kenn xeexuloon est-ce que dinañ am indépendance. mais corruption itam nañ ko xeex. du yomb mais dina mos a sotti. bi si des mooy comme li ngay wax foog ñu am fexe. maanaam ay stratégie. am xarañteef foog ñuy prôné aussi. am na yoon dama koy gis sax ci local yi. suñu ne diw brillant na. ah yàlla ma yàlla baal néew ma c'est le cas mais dafa mel ni Sénégal nag yàlla na ma yàlla baal dafa am ñu iñaan. brillant fi sax nattu la. c'est mais nit su brillant du fotam. yàlla moo ko ko defal rek. c'est mais nangul ko ko da nga ñaanal ko voilà ak pas nga ñaanal ko. ça veut pas dire qu'il est le brillant certainement. am na ñu ko gën a brillant mais bu mu tax nga naan woy réew du xam-xam kese moo ko yor mais hôpital. mais loolu wax bu yàqu la hmm. réew xam-xam moo ko yox ah si yoon man de loolu laa gëm. loolu réew xam-xam moo koy yox après la masse suit quand même. te li ma si gën a neex mooy. Hmm. jàng naa daara daal loolu lañ ma fa jàngam hmm. te defe naa ni jàng si jàngu bi tam loolu la leen jàngal. ndax du ñu jël ku jàngul dara ci église ñu jiital ko ci benn jàngu mhm. du ñu jël ku jàngul diine jàngoo alxuraan ñu lay jiital ci jàkka mhm. te ñu xam ko mhm. defe naa tamit loolu lañ ma jàngal ci école mais monsieur Samba li ngay wax c'est tellement vrai dama koy dëggal à chaque fois damay waxtaan ak benn borom xam-xam mu naan ma le mal du Sénégal fu mu toll nii on donne le micro que yéen reste journalistes yi am ngeen ci part de responsabilité ak nit yi war a sax si daara yi ainsi de suite ñoom ils n'ont pas droit à la parole de ce fait dëkk boobu nga xam ne mun nañu wax ne fu mu toll ni faiseur de bruit wala borom làmb ñi neex yi ñoo fay nekk di wax di gouverner dëkk boobu dafay tane rek mais du mus a dem si émergence wala prospérité quand même. la loolu laa ànd loolu laa gëm cest à nit ku nekk li mu mën dañ ko ko war a jox. mu mhm. jiite ko. Mhm. ki si gën a am talent bu ko jiitewul itam ñu encouragé ko. Mhm. ma gis fa koo xam ne am na talent. Mhm. da ko war a encourager jàppale ko. pour lan pour mu éclore. Mhm. parce que le management des talents. tey mhm. dafa am solo. ndax su dul loolu nit bu yeggee benn niveau bi. buñ ko jëriñoowul pertement la si askan bi. c'est vrai même chose aussi si suñ gox-goxaat yi. Euh, euh, pareil dama koy wax sax kenn mos na ma interpeller si benn maison de presse. ma ne ko man li ma gëm mooy soo jotoon ci collectivité tey war ko jiite. Mhm. première chose mooy su ma mënee def recensement su ko moyens yi permettre dañ koy def. Mhm. pour xam waa dëkk bi. Mhm. ku ne lan la mën. est-ce que vous aspirez à être maire au niveau de Rufisque. ah merci beaucoup je suis d'ailleurs <laughs> candidat à la mairie de la ville de Rufisque. ok voilà donc <laughs> loolu ay ndaw yu bari si dëkk bi ak ay nit ñoo ñëw seet ci ñu. ñu tàggu ci suñuy. waajur parce que ñu ngi dund te mm-hmm. comme que ay croyant lañ ñoo la ñu jàngal mm-hmm. euh, looy def loo nekk nekk kilifa mm-hmm. sa waajur si dund di ko laaj lan la si xalaat ak lan la si bëgg di nga ko wax aussi sa famille ñu ànd si si lañ dugg si politique effectivement nous aspirons à maire de la ville de Rufisque pour avec ñi ñu nekkal nga xam ne ay àndandoo lañ ñun duñu wax militant dañu wax ay àndandoo parce que ñun ñëpp benn lañ ñu péncoo indi ay orientation yoo xam ne comme li ma wax aussi du ñu xaste mhm. parce que valeur yi ñu jàllangal valeur culturelle yi xasaate du defar mhm. nit ñi nga xam tam li ñu def du noonu dañ ko war a nangu rek mhm. ñu xam ne ah fii di woon noonu ñu ne lii mooy yoon bi gën tey ñu jël ko et pour que ñu jël tëngëj jéem ko teg si yeneen yoon yoo xam ne dinañu permettre économiquement culturellement ak si yeneen domaines yëpp ñu suqaleku lu raw fi ñu toll. Mhm. loolu daal moo ñu dugal ci politique bi ci mairie Tëngëj. Mhm. le système de parrainage au Sénégal aussi mu nekk mbir boo xam ne lii di UEMOA déploré na ko sàkku ci Sénégal ci diirum 6 mois mu génne rek li nga xam ne mooy parrainage est-ce que da jàpp ne réewu Sénégal dafa war a conformer wu à décision yi nga xam ne moom la UEMOA tegal quand même. waaw ça je pense que boo bokkee ci mbir. Mhm. nga dugg si daayira. su ma ko mënoon tuddee daayira yow ma wala CEDEAO daayira la. voilà CEDEAO daje la daje bu ay voilà. Mhm. donc bu ñu dajee. Mhm. ñun ñu nekk si réew yi nga xam ne si gën a am solo lañ si fini. Mhm. ah ñun bu fekkee ne lu ñu wax duñu ko def moom dina poser problème. jàpp naa ne bu yàggee ñu wax ñu délinquance quand même. voilà bi si des mooy ñu ngi oote intégration africaine ñun ñëpp. et intégration sous régionale man dama bokk si ñu gëm ne euh, moom la war commencer. après mu am intégration au niveau africain mu gën a yomb. <laughs> alors au niveau euh, régional su fekkee ne tamit ñun instance ñu ñun d'accord. Mhm. ñu teg ko fi. Mhm. bu ñu ñu digalee waxuma nag lu ñu digal dëgg la mais bu dee nag vraiment li ñu digal mooy yoon te rafet na te dëgg la. Mhm. waruñu sax yéexantu dañ ko war a def pour nekk comme ni ñu ko mos nekkee. bokk si élèves yu baax yi ndax ñun mm-hmm. réew bu baax lañ mm-hmm. réew la boo xam ne kenn mosuñu yàpp nit ñi dañu mos naw mm-hmm. donc man jàpp naa ne daal li si gën rafet suñu autorité yi j'espère que ñu ngi ñuy dégg te dégg nañ ñeneen ñi li si gën rafet muy peut-être conformé wu dinañ ko def ñu dindi ko ndax nag vote bu fekkee ne vote bi leer na même suñ la ne wut comme que ñu droit lañ am nit ki na am ñetti nit sax garaawut mu xam ne ñetti nit la am soit mu dem corriger bu ëllëgee mu am ñëpp wala mu gis ne moom nit ñi doyloowuñ ko ah mu sant yàlla sant gërëm ñu ko jàppale mu dem toog. Mm-hmm. mais comme que démocratie permettre na ko ah man daal jàpp naa ne. Euh, parrainage war nañ ko mun xoolaat. Mm-hmm. ñu jeexalee ak benn question monsieur Samba vous êtes le coordonnateur des caisses.